tubaab bi fi nekk. waaw oh, tubaab bi dañ ci biir. ah mu meloon bàyyi na ko ci kër ci kër. moo ci man de ma sax góor bi waaye jigéen bi ni ma soofe. xaaral ma bi fii sax ndax yaakaar naa moom dama ci sax moom ci kër ci këram ko. ah dama meloon tey ma soofe jabar ji xanaa boo soo yow. sama nijaay ay ay. <laughs> boo soo. ray ko rek ray ko. dégg nga saa <laughs> yaa ngi mel ni nagu rek ci mboom nag. bu ko ndax si bu la fee naagi bëriwul. yow li ko mën a lii nga sonn xanaa sa maama ko moom. ah sëñ sama Mbàkke mu sëñ Sidi Muxtaar. moo ma ko jox lu ma am moom. waaye gis nga. bàcc ñu ma ak ma soof. ngi dégg ca gare dër. Ah. moom franc-maçon la fële ca Ndakar. dégg naa loolu la fay. bu xëyee suba bu xëyee suba am na benn palaat bu ñu naan eh, eh, takk ko ci loxo bi te du julli. bu pare am na sumb sumb ëf dégg na ñàkk fayda gis nga noonu mu ko ëffee nii ëf mu dem ah. yéen yéenay dem ah xanaa sama ni jaay man par benn ngeen man damaa diis man damaa diis ñu camion man damaa diis de caaxaan yu ah yow nag bu caaxaan wee dëgg des moom camion sama nijaay camion doo moroomam dama ni déj déj jaar mënu maa ëf man allah akbar nga fi dëkk nii ni fi xeet bu ma fi dëkk woon noonu kenn waxatu kon kon boole naa ko ñu génne kon lu lekk formation def ak ginaar yëpp mooy borom xel sama yaay sama yorul dara sama yaay sama yorul dara ak ala rek la yorul tous yow day wëndeelu rek di toog yow nag daanaka lu la rey sa biir bi la ko teg ah biir bi mooy mooy bagage waaye nga gis ni kay li la tax a toll nii xam naa ko lu tax demoo sa kër nijaay ñëw sama kër nijaay di na fa nijaay daa am sama nijaay kóllëre dong moo tax nga jaar fi yow lu tax demoo sa kër nijaay ah. sa nijaay ay kecax lay togg sa nijaay togg ginaar sama kecax nijaay yooyu man du loolu ma fi indi bo dafa tolloog ni da ngay sama wóllëre xëy na gis naa nga toll ni nii ma bëgg nee tool. mënoo toll nii ndax daaw daaw kër sëñ Baara Diop laa woore sëñ Baara Diop mu may jox par ñeenti ginaar par juróomi ginaar daaw ëpp te fa laa wan na ba toll nii ma toll barki sëñ Cheikh Ndiaye Modou Sadiq. saa waaj. bul daanu bul daanu. ba tànn tànn ah. waxul seen ne. yaa yaa yaa. dëgg bëri ko buy bëriwul ba. toogee ba tey ci nit ngeen nekkoon di jëw nan ngeen di mën a woore ba pare jël seen làmbiñ wi teg ko ci kaw nit du ngeen ko wàcc mukk te xam ngeen li ci jëw ilimaan yi wax nañ sëriñ si wax nañ ñu baax ñépp wax nañ ci jëw leeral nañ leen seen diine nag jëw mi ngi mel ni sa moroomum jullit nga tiim ko di ko jëfandikoo loolu la jëw mel koor di bisu ngëneel boo xam ne yàlla da ko noo koo jagleel ngir ñu ci fóot suñu bopp ngir muy weeru promotion boo xam ne dañuy delluwaat ci suñu borom dolli suñuy jaamu yàlla mm. ngeen di jëw du ngeen doon ay jullit mukk lu dul kat yéen jëkk jikko yi naa feqi dafa génn ci yéen seenu jullit du mat mukk loolu da ngeen a bàyyi jëw wala ngeen bàyyi lu mel ni jëw ngeen tooge nit wax leen ko lu ne ngeen yàq ko nit nekk ci darub nit amatu leen kilifa amatu leen ku leen neex ngeen yàq daram lu neex waaye yëkkati teg ko ci do darub nit wax lu leen neex rek te seenu njulit du mat mukk loolu que li ngeen yéenante li nga yéene sa bopp danga ko yéene sa moroom julit warul sax ci budul weer xamatu leen nekkin ku leen neex teg ci si ab daram lu neex lu neex waay wax ngeen ay jullit ngeen waaw baax na lépp lu ngeen jëf rek di ngeen xam di ngeen daje ak jëf-jëf jàppoo leen ko noonu waru mu ni mu ni jëw mu ngi mel tim sa moroom nit di ko lekk waaw waaw man ne kon ku ma tiim di lekk moom mooy doyuwaat kay bala maa jeex. ah noonu lay santaane kay. ab dëkk kon mën nañoo liggéey ci man. waaye nag li ma tiiloo mooy damaa dégg keroog kii bi addis bu mel noonu. <laughs> lan la ñu ah? <laughs> dara yow moom yow laa gis kër ba yow dama laa xasa xasa ba yow yow liñ ci bu ñu sa baxawul. yow moom nga yow kan nga ñëwagul yooyu bay yéen a ngi mel dafa ñaaw sax booy booy ñun duñ sa morom bàyyi. lan yaa daal booy ñun duñ sa morom. waaye yaa ma gaay boo bëggee koo këll këll wala ko saa saa doo yaa ma gaay sa morom yi bàyyi lan biñ lay xarafal fi fi lañu fekk ñoo la teewoon rew nga lool Moustapha sa ñuraay bi ñëw sàppul kër yi Moustapha kii daa xamul boppam baal ma wax ko boppam sa ndey bi muy wàcc ci kër gi ñun fii lañu fekk mu ko waxaat nit ku xamadi nga sa gis nga boo lu mu yàgg yàgg la si fay Moussa Ba dama lay ñeex rek wan na lay def da neex ak lu mu yàgg yàgg rek bul yëg ci kaw yow daal lu mu yàgg yàgg rek bul yëg ci kaw taxawal fii laa dama la dama woo bu nekk yaa waram de xam nga li ma bëgg lu mu yàgg yàgg bul toog ci kaw ba ma wax na réew ba ma waay man jot bëgg a dee yéen a jóg ñoo leen ko lu leen fii yéen a maa kontaan ci ni ko def bi ko nee ciix waaye yow nag ku ma soof nga sa xaftaan bu rëy bii ngay lëfar lëfar ci kër gi bi nga ñëwee ci kër gi léegi nga ma dugal ci kàmmuk jëw may wax ci sama bëgg naa nga ne cot te dégg naa nu woo woor ak buum laa wuli la ci garab ñàkk nga jom loolu. te xalaat naa ni nga def gone gi nga a def waaye yaakaar naa moom bu dee maa ngi yow doo nga am. de gis nga man kay xam naa ni. taxawal wax man waa taxawal damaa bëgg. kaay eh kaay nii si mbàkk soxna la. naa ma si taal soxna la. ay yow bu tooy. toogal bëgguma dégg di buri kër gi. du fi am de sama nijaay lépp solo xolam rek. fii de du fi am yow kay loo bëgg yàlla ay jàmm rek. bu wóoree jàmm sax doy nit bu tollu ni nit ñi nit bu tollu ni nit ñi lu mu def nit ñi nit ñi da koy muñ comme yàlla yow dalaa bind rek ni la acca nga ni fa nit mel ni naa ko pompe ci biir kër gi man doo ma fekk tey fi laa ko naroon a waaye am naa yaakaar ni dem rek.